maître Alioune Badara Cissé génn àdduna ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru bile gannaaw ab tawat bu ko dab file ci cité ISRA nga xam ne fi la doon yeewoo ak njabotam mbokk xarit àndandoo ak am di jàmm ñëpp teew fi ngir taxawul ko bësam waaye it seedeel ko. suñu borom moom du jub moo indi woon badu moo ko sàkk moo ñu ko suñu borom di seede nag ci moom lu rëy muy ne sais man si ci mom du jël alalu le ken mënu ko personne ne peut le corrompre ndax xamé francs ak 1.000 francs l'argent il me disait c'est du papier c'est pour dépenser dimbali ci ñi nga aussi dama ne du ay rek dimbal taxawul nit la ba du ñaata yoon la sol robam gis des gens défavorisés mu sol robam di leen plaidel di leen plaidel ba yàlla defal leen ndam wala ñu bañ gens am ndam te fekk seen dërëm demu ci des yoon laa ko fekk nit di ko massow ko déet bu ma defal ba ci ay dëkk doom ñoo xamante ne ñoo gens ak ñoo xamante ñoo ko njëkk tabax ak ñoo xamante ñoo tabax ginnaaw nit yaakaar xeyna ben coup de ciment bi ñuy def ci muram da koy yakal mu la dedet bu la nexé sax tojal mur bu la nexé sax nga duggal ci ciment sa biir kër sama biir kër ba keroog ngay muy fi di fenen ak feneen mu nek di ku bax bu ñu mëna a lu ñu waron supporter dañ ko dañ ko bokk ak le monde entier ndax nak dara su ko jaral dignité dara su jaar ñu bafoué dignité waye nit lu mu namp nak loolu lay toqamti ko ñu

yow li nga am doo wàlliwu mais war nañ ko mën a méngaleeg yow parce que nit koo xam ne ñu la bëgg xamuñu la lépp ndax sa dignité ñëpp ndax sa fayda lépp ndax sa courage kuy naw nit wala di bëgg na nga am lu mel noonu man loolu soxna si ma ne loolu lool moo am nit ndax nit nag mën na dem ba pare bàyyi fi way boo xam ne kenn du bëgg la xam wala di bokk ak yow. ñamu doon jëflanteel ca médiature ñoom it dog seen yitte.

Aline Badara Cissé dalal na len recevoir na len à la médiature je parle sous le contrôle de son conseil spécial monsieur Athié Gassane Athié xamantene chaque fois ñuy dalal ay syndicats ñuy ñaxtu euh, mu recevoir len dalal sen xel wax ak ñom il avait le sens du mot juste il savait trouver les mots pour parler aux Sénégalais ko xamantene dafa yag di ñaw ay diggante musul bëgg ben tolof-tolof am euh, quel que soit euh, secteur d'activité bu qui donne doon ci réew mi maa ngi fàttaliku hôpital moy hôpital régional bu Saint-Louis hmm? ma ngi le mouvement euh, qui en 2016 on a failli fleurer une année blanche Aline Badara Cissé a pris son bâton de pèlerin dox ci wax ci wax ak syndicat yi dalal xelu parents d'élèves yi xelu euh, élèves yi ba année bobu yalla defal ñu jamm en tout cas man lu ma koy tuddee. Euh, c'était euh, qui le socle de la République. C'était un artisan de la démocratie, un technicien de la paix. Alioune Badara pour moi, c'est l'une des plus grandes pertes de notre pays. C'est la jeunesse, c'est un homme humble, c'est un homme généreux, c'est un homme de classe, c'est un homme instruit. Vous ne pouvez pas ne pas aimer ce monsieur. Que Dieu lui ouvre les portes du paradis. Et au nom de toute ma communauté je présente mes sincères condoléances à tous nos frères sénégalais. du ñoomi ay délégation bawoo nañ ba ndar géej ba mu cosaanoo ngir ñew firnde seen cofel ci maître Alioune Badara Cissé. Ala da ko bolé won nag wa ndar mu jubo ñom fa la juddo fa la defee léppam wayé nak ba mu am bëkk Yalla yàlla teranga teraanga nak na biir ndar kon wa ndar gépp ñu koy ñaanal Yalla nako Yalla yàlla yërëm ndax maître amuñu fayam. rawatina man mi nga xam ne man mii maa doon jëwalam di yàlla boole maak moom may ànd ak moom te bi muy metti may ànd ak moom bi yàlla dogalee fii mu nekk fàttewul kenn maître demul ba teraanga teraanga nekk ci loxoom mu fàtte nitu doo nitu démbam loolu dalu ko tey kuy nit ku baax tey yaa ngi fi teew ndax sa diggante moom ak kóllëre ak jëmm ju rafet yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljanaa badara baax na kenn waxatu ka xasida yi ñu koy jàngal bu ñëwee réunion Ndar bu ñu toogee ci moom day jekk yëkkati moom ci boppam xasida Serigne Touba yi di ko jàng suufeel boppam woyefal boppam macha allah yàlla bu këccët jiitu ci bàmmeelam ñu nag ñoom ñoo dëkk muy tabar fa kàllakaar nu koy ñaanal yàlla suufas Touba yàlla na woyof si kawam yàlla na ko Serigne teeru ay mbokkam laa nekkal ay jigéenam ay tantam ñëpp laa nekkal maa ngi ñoom ñoo dëkk macha allah ñuy nit ñu baax di nit ñu gore di nit ñu yaru tabar fakkaala kar ma di leen ñaanal yàlla yal na leen Badara dëddoo jàmm dëddoonu ko dëddoo ko bépp jullit bu nu bokkal yéen parce que da doon bay ci waar bi di liggéeyal président Macky Sall di liggéeyal parti bi bu baax a baax ñun ñi mu fekk ñu ñu ñun ñëw jël ñu pour ñu représenter ko dans l' arrondissement de Raw ñu jàppale ko lool lool lool lool boo ko woowee lu mu guddi guddi guddi dafa naan la coupeel ma ma jël la coupeel ma woo la tan xam lu wul kenn muy bànneex mi ngi taxaw muy naqar mi ngi taxaw wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal daal yàlla naka yàlla baal te jéggal ko li mu fi bàyyi yàlla na si yàlla tax la ko li mu doon liggéey tamit yàlla bu mu nekk lu nuyul loolu la ko doon ñaanal. ñoom ñi leen nag ku si nekk ak li aji dem ji def ci yow muy lu rëy lu dootul nax saa yi. doon na ma wax ci circonstance yu mel nii bu nit ñi jege see di ma jege si sori ma ndax yaa xam samay xarit yaa xam samay sëriñ yaa xam samay mbokk ñi ci des. ñi politique moñu bolé ñi ñii moñu bolé ñi gëño ak men moñu bolé waye yow ya xam sama ñëpp ya xam sama ñëpp demal nga taxaw ci buntu ba nga fexé ba buñu ñu tumuranke nga fexé ba buñu ñëwé ñëwee ne mel man ma taxaw di leen gàttanu ndax gën dañ koy gàttanu jangal na ma lool ci ci lool la nek ba tay ji neku fi ma dem taxaw ci buntu ba xamé ñi nga xamantene ñu di ak duñu

day wax daf ma naw mané ko man nak li tang jir rek ndax nit ki mom nga dé sax ñu naan diw doomu diw la ak ben comportement dara jarul moo wax dëgg yàlla sant rek sant rek dañu def. man dafa fété won si man lu béré daf ma ouf ndax fekke na sama judd ba pay mu jëlaale ma si wétam lépp lu mu mënon def si man def nako def na si man ay qualité euh, que ce soit si liggéey wala si ñu wax taxawé Euh, Mandal, il m'a beaucoup appris beaucoup de choses. Des fois, même dans le silence, il m'a appris beaucoup de choses. Euh, même si wax sax amoon na jamono nii may def nii sax ma ko donc man pour man il restera toujours en moi parce que voilà c'était un père un ami un confident. Taïdi, jii bu politique xam Macky Sall njiitu réew mi yàlla ak Aline Badara Cissé moo tax ñu nekkoon ay ndaw nekk université di fa taxawal di taxawal parti bi.

jege ñaaleem yi duppe ko Badou ñeneen ñi gën ko xamee nag ci turu ABC mi ngi gane àdduna ci atum 1958 ca Saint-Louis def na ci réew mi nag liggéey bu mucc ayib bu way politique yépp bokk seede jébbal nañu ko boromam ni ki dimanche ca almer yu ya ca Touba ba mu jokk woon